dem ci Tchad laata may ñëw ci euh, ci yow Omar Faye euh, ñu gis ne que peut-être ñu bëri ñu ngi jàpp ne que on parle de deuxième vague euh, jël nañ mesures yi mu di couvre-feu ak état d'urgence teg ko rien que pour au bout faire comprendre wala faire accepter aux Sénégalais vaccin boobu ñuy jubal est-ce que mën nañ jàpp ne que loolu la actuellement. sa xoolee soo xoolee lecture bi ñu ci mun def loolu rek la moo am liberté ou vaccin. loolu la si vous voulez la liberté acceptez le vaccin si vous ne voulez pas le vaccin moi je vous prive de vos libertés en réalité Macky est en train de se yaaya jamiser quoi mm. donc dictateur la bu nëbbatu woon mi ngi feeñ maintenant est-ce que moom moom mooy décider c'est ça aussi beneen question bu ñu a wut maintenant les gens peuvent nous taxer de théorie du complot ngeen nekk ak nangam ak mais les faits sont là faits yi ñoo accablant donc ñun mënuñ ci lu dul analyser ak suñu ay suñu ay xel gis gisuñu cohérence ci li ki di def gisuñu cohérence ci li ñu bëgg a defloo kii wax na la ko sànq xam nga ñun dañ jógee ci étape boo xam ne dañ def couvre-feu plus ramadan mm. population jeune donc propagation virus bi melu fii comme ni mu mel ci pays européens yi on parle de cent mille vingt mille cas imaginez dix sept millions vingt mille cas dix sept millions vingt mille cas ça fait même pas zéro virgule zéro virgule zéro virgule en tout cas si ay cas testés mm. defuñ ay test de masse pourquoi defuñ ko wax nañ la ko léegi nee nañ la région yi bokkuñ ci pourquoi parce que amuñu peut-être quand même mënuñ je sais pas si à Kaolack ou à Ziguinchor on peut faire les tests là-bas ko man j'ai jamais été testé ba bi ma war a génn réew mi laa war a dem ma fay quarante mille est-ce que quarante mille c'est à la bourse de tout le monde donc yow tu exposes non seulement ton peuple permettre lañ la France si elle nous aider pour des vaccins nañu aider d'abord pour des tests que la France que ces pays-là ces ñu def des tests de masse parce que nañ ñu may ñu def ay test de masse ba pare balaa ñu ñëw waxu vaccin pour vérifier l'effectivité ou bien la quintessence de ce qu'ils veulent faire par rapport ak vaccin bi nañ ñu permettre au moins ñu am les données ñun les chiffres les experts de santé yu déggoowul ci seen biir jaamarloo ci seen biir ànduñ ci ñi am mutisme noppi qu'est-ce qui se passe en réalité si ñun gëmuñu mais man je pense que Macky est en train même de décrédibiliser les gen les experts de la nekk au Sénégal il les a parce que bu ñëwee ne jaaxa tamit ci ci xelu population bi parce que ñu gis ay experts de la santé ñii ne waaw d'accord nañ ci vaccin bi ñii ne déedéet attention attention loolu tamit lan la war a def ci xelu sénégalais kan moo amul jiixi jaaxa fii ci kan moo amul jiixi jaaxa et experts yi en général je j'ai jamais vu des experts en phase avec un pouvoir en place jamais remonter l'histoire Cheikh Anta Diop Senghor mm-hmm. jamais en phase avec un homme politique parce qu'il ne gère pas les mêmes intérêts ils ne servent pas les mêmes choses kii intérêt peuple bi la ak science ak xam-xam ak futur kii teg a tembe la teew mu teew poche remplie jouer le jeu suivre un programme bien déterminé Macky est en train de suivre effectivement le calendrier bi ko ñëwee tubaab bi dicté et même pendant son discours au décembre wax na benn affaire nee na Euh, on va punir les passeurs pour affaire immigration clandestine ça c'est pas un programme de Macky c'est un programme de l'Union européenne c'est l'Union européenne lu Macky di wax lu jóge ci moom moom créé wul dara préparé wul dara il n'a réfléchi wul sur dara parce que associé wul kenn ci réflexion yi aujourd'hui Macky veut pourquoi mu bëgg a assassiner nos nos nos nos enfants qui sont dans les écoles dafa xaw a graaw ñu ñu jël suñu président de la république fal ko ngeen ne moom xalaatul deful dara loolu tamit tamit naka lañ ko mën jàppee. non xam nga soo nee ma ñu jël suñu président fal ko ñun ñoo ko fal donc mais na liggéey pour ñun. ban acte la Macky posé bu jëm à l'encontre de yéen lay liggéey wax ma ko du ci benn domaine. boo génnee ci domaine bi sanitaire bi ñuy waxee nii nga dugg ci côté secteur économique am amul lenn lu Sénégalais yi moomal seen bopp amul lenn lu ñu moomal suñu bopp moomul suñu bopp ci benn point maintenant li gën a graaw li gën a méprisant aujourd'hui mooy que ne dafa am carrière dictateur bu ko taxawee ci réew mi te loolu ñun duñ ko nangu douze jours yi bu jeexee Macky il faut que douze jours yi bu jeexee bii jàll na non bu mu sax xalaat proroger non non non non non non bu mu xaar bu mu xaar loolu parce que nag il faut comprendre man je pense que Covid bi aussi ça a permis à beaucoup de dictateurs ñu museler cette entre quoi entre guillemets benn démocratie bi am ci yenn réew yi parce que aucun système ne marche. assemblée mécanique nga am ñu voté la loi d'habilitation parce que constitué nga nit ñi nangam loolu neex nga décidé loolu aussi war na mun a am quand une loi d'habilitation war na am ay contours pour mun a pour pouvoir contrôler quand même le président li muy def ak ñu dugal ci yenn gilaawal la ñu qu'est-ce qu'il y a qui se passe dans ce pays pourquoi nit ñi mënuñu wax dara pourquoi nit ñi mënuñu def dara pourquoi les personnes autorisées à parler cette question là tànn ngeen leen est-ce que les journalistes sont allés voir les scientifiques eux-mêmes pour ñu wax seen version mm-hmm. à part deux trois yi ñëw ci plateau mais il faudrait que nit dem gis fan la vérité bi nekk et qui a conseillé au président de faire ce couvre-feu il qu'on connaît la liste des gens qui je ne pense pas que presse bi xam nañ ñan ak ñan la kon ñan ñooy experts yi il faut qu'on nous dise ces experts qui ont décidé que couvre-feu à partir de 21 c'est pertinent dans ce pays. mais mais mais kon lan moo waroon pertinent parce que tamit euh, couvre-feu 21 euh, su amul lan la ñu waroon def tëjaat marché yi tëjaat école yi tëjaat jumaa yi euh, matin yi. mesures yi ñu mujjoon a jël. Mhm. mesures yi ñu mujjoon jël bi ñuy je entre guillemets arrêté couvre na tene. boo ci distanciation euh, euh, physique bi distanciation physique euh, munul nekk masque. distanciation physique munul nekk Sénégal ñooy bokk benn bool di añ. Hmm. munul nekk Sénégal kenn mënu fi wax waxu distance c'est pas possible li nga mën a wax kay mooy nit ñi sol leen masque raxasu leen à à tout moment. loolu rek nga loolu rek nga a wax te joxe ay masque mais boo ñëwee bàyyi élèves yi 4 millions d' élèves nga sànni leen tasaare leen joxoo leen ay masque joxoo leen ay ay ay mm. yi joxoo leen ko noonu professeurs yi bu ñibbee seen kër lañu dem élèves yi seen kër lañu dem nga ibbiwaat championnat national de football nit ñaa ngi footballaat ñu ne dér marché yi comme comme tout leeg maale transport public yow sa transport doyul mm-hmm. sa transport public doyul nga ne da ngay nga ne da ngay nga ne da ngay tëj nit ñi ay benn heure boo xam ne heure de pointe la say tali baaxul. say tali yaatuwul. fépp pont la fépp yaa ngi ko bouchon fépp yaa ngi ko tëj. faut arrêter. xam nga gis nga même problème mu masque yi man li may wax rek c'est que parfois. gis nga on ne prend pas le temps d'étudier les choses mais gis nga masque ñi ko mën a sol bëriwul. wax naa ko keroog fii le docteur nous nos enfants suñ doom yi nekk terminal jëm première ñu ngi may dégg mais boy yi ñun on a une jeunesse malade pas au sens où Abdoulaye euh, Senghor euh, Abdou Diouf le disait parce que cette jeunesse la aujourd'hui mais du point de vue scientifique elle est nouri de colorants elle est nourrie de produits chimiques boo yu xolal surtout jigéen ñi ku ci yéeg deux étages boo ñëwee da ngay essoufflé et puis loolu du ñoom rek. mais euh, le ministre de l'enseignement supérieur mais sol na fi masque deux minutes daf ko dindi ne ça étouffe. waaw le le président français Macron wane nañ ko en direct muy sol masque bi mais dafa xoj ba pare ne mais s'il y a quelqu'un y un verre d'eau ça ira jox ko mu naan ça veut dire que même nit ñi masque bi ngay sol. les scientifiques ont montré que 40 pour cent du gaz carbonique que tu respires retourne dans tes poumons. C'est là encore un élément qui ne sauve pas les gens. C'est un élément qui affaiblit encore les gens. Il faut faire une étude sur les populations xam ndax mën ko sol mais on ne peut pas se mettre à surfer sur des détails sol masque ba masque yi ils sont faits à base de quoi mm-hmm. c'est des produits chimiques comme exactement bi ñu fiy jël ay il fallait que nit ñi di yuuxu bañ ñu dindi ko léegi indi ay cases de papier les masques peuvent participer à affaiblir la population et même à tuer certaines personnes. parce que masque dafay xoj nit. alors ma ñëw ci euh, ci euh, Omar Faye leeral askan wi Omar fay lan lañ mën a jàpp ci sa analyse par rapport ak euh, li ñu jot a wax yépp